daleen nag jàmm coronavirus xàmmeewut xeet xàmmeewut diine xàmmeewut ku am wut ku ñàkk mbir moomee Moustapha Guirassy di patron école bi di IAM du ko weddi moom dañ koo testé coronavirus maanaam dafa am jàngoro ji di coronavirus mbir moomee moom ci boppam moo ko xamle ci page Facebook am jaarale ko ci ab vidéo ba mu fa piblier ci vidéo ba Guirassy mu ngi cay wax samay xarit dañ ma saytu ma am coronavirus jamono ji maa ngi ci loxoy fajkat yi fii ci hôpital bu Diamniadio maa ngi sant bu baax personnel santé bi fi nekk ci liggéey bu am solo bi ñuy def ngir xeex jàngoro coronavirus ak faj ñim jot dal maa ngi sàkk nag ci bépp doomu sénégalais mu toog këram waaye maa ngi sàkkuwaale ci ñoom bu 21h jotee ku nekk taal lumière teg ko ci kanamu fenêtre ngir delloo njukkal suñu médecin yi yal na leen yàlla sàmmute te aar leen. Euh, yéen ñi may seetaan yàlla na jàmm nekk ci yéen wàcc ci yéen yàlla leen yàlla aar yàlla na yàlla jàppale euh, man nag euh, nattu dab na ma mooy Covid 19 bi testé nañ ma mu positif ba tey jii maa ngi ci hôpital bu Diamniadio maa ngi ci sant yàlla bu baax alhamdulilah sant yàlla bi ma nekkee Sénégal sant yàlla tamit. bi ma yàlla booleeg euh, un personnel sanitaire autorité sanitaire euh, yu am benn leadership bu am compétence euh, maa ngi ciy sant suñu borom bu baax a baax di féliciter le ministre Diouf Sarr su ma ko féliciter tudd naa ñëpp docteurs yëpp. yëpp yëpp yëpp infirmier yëpp ak euh, lépp loo xam ni àdduna ci ku ñëw ba hôpital Diamniadio ci ngay comprendre en fait euh, toute la chaine euh, nu mu complexé pour mën a maîtriser donc lu mel nii di leen sant leen gërëm bu baax suma mbokk yoo xam ne nag ba léegi mucc nañu yàlla na yàlla continuer leen aar mooy wax ni nañu gën a discipliné moytu nuyoo yi moytu rassemblement mbir mi moom xamul député xamul ministre xamul directeur d'école euh, donc na ku nekk moytu euh, vous avez euh, tous les moyens mën ko échapper discipline rek ak toog sa kër te ndànk-ndànk ak ànd ak dal ànd ak dal li ci des moom mi ngi loxo borom te léppay sotti maa ngi dégg coow yu bëri tamit wante dal ak discipline fermeté suñu borom mën nañu ci génnee euh, musal ñu ci kon à très très bientôt euh, ñaanal leen moom ma fekk leen ci biti euh, du yàgg incha allah fi amanillah jërëjëf